wajah tua tuakiliman takrim bana bisa syahri maulidiman fil bahri rabbana wajah man takrim bana في شهر مولدي من mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte mu rëy ak bànneex ci teew fii ni ñu ko defee woon daaw teew ci sunu kanam doom di sunu xarit Sëñ Abdou Xaadir Cheikhuna Abdoul sëriñ bi li nga taxawal day lu am solo la lu am njariñ la tamit ndax fi jamono ji toll cig yàq cig nax cig lëj sa moroom yépp nekk ci leneen ñu tolloog yow ci at yow nga jóg jëm ci sëñ bi jëm ji fàttaliku sa maam lu am am solo <laughs> ñu ngi la ci sant bu baax di la ci gërëm di sant sa bokk yi nga bokkal sëriñ bi tañ teew ci seen teewaay rafet na lool day tegtal itam ni jëf juñ nangu la rek di sant tamit taalib yi fi teew yépp ak ñi bëggoon a teew te teewuñu li lu ko ëpp solo amul ndax ku jëlatul bind war a nafar te lii ab nafar la ci ñun ñëpp ndax gisatuñu sëñ Abdu gisatuñu sëñ Tuubaa kon nag di def organisé bi yu mel nii lañ doon dund ak lañ doon doxee ñu koy nafar lu am njëriñ la ci ñun ñëpp kon tiyaaba ñu rëy na waaye yàlla na la ba agsi ci ñun ñëpp barke sëñ Tuubaa bo gisé yoon yu agsi fi mu agsi dara lu ko lu may waju yu am jom rek ta deggu nak ta jaar ci saatal mustaqima fas dem roy sen waju muy cheikhul khadim sam doon lañ len baye bañ ca sof dara nak dañ ko mom dañ don dañ don sofu ñom sosu ñu ko astaghfirullah sosu ñu dañu sof ci liggey sëñ bi rek sof nak ko way def ko da ngay sax ñep waaye ko sox nak daal di sox ñep سرين توبا عندي في دين الاسلام داكو رافتا رك تارال لا كو داف تزيد بوبو نجي داف واي سوسي دا سوسي دا ني في باي تام ني في باي نون لنجو سامي اكسي جي جامانو جي ما ملنا رور مي بارنا لول waye poudre bi yoy de nga fi yad wi yad wi yad wi yi ray tam fi gaay tam nga fi seigne ba do ko nak jamono fi seigne mourid uppe loxo di ba mu koy tas dafa waxoon ne am na yat woo xam ne mi ngi fi te lu leer naa ñu la ci am li fi jógat ci bëgg a def na dana sa kaw ak sa bopp loolu na ñëpp yàq gi nag dafa bari léegi ndax bari na ci média yoo xam dañu yàq bari na ci télé yoo xam dañu yàq rajo yoo xam dañu yàq bari ci nit ñoo xam tam dañu def ay xam xamla ay campagne ci nit ñi ngir woyofal diine woyofal taalibe woyofal pas-pas te loolu amul benn njëriñ man jox nañ ma ci ay document barki dem mi ngi sama am na lu ma ci liir waaye am na loo xam ne ñëwuma koo liir sax ndax njàng gu njàng te yëpp yàq pas-pas rek la ñu jublu waxoon naa ko barki dem ku ñuy wax Babacar bu ma jox document bi ñu bind ca nisaan bi ñu jël ngir. combattre yoonu mbir wàññi dooleem daal diirub cinquante ans ci kanam seen i pexe ku ne gis nañ te ña ko def kat du ñuy Sénégal ña koy liggéey ña koy lijjanti ña koy ña cay dox ay ñeneen lañ ku mel ne Arabie Saoudite gis ngeen ko Oustaz Mouhamed Diop dañ leen dal fale génne leen réew ma sax far andi ruwaayam bi lañ bëgg ñu koy doxal. te nu leen neexe loolu nag xam ne lañ loolu lañ bëgg mu agsi fi ci Sénégal ba tax na ñoom ne ñett rek lañ soxla ñett ku bokk ci sëñ directement sëtam ndax xam nañu sëñ Tuubaa mënuñ ko dara ay doom mënuñu dara waaye xaj na bu amee ab sëtam message bi bëgg ñu koy jaareel ci moom xaj na li bëgg dañ ko mën a am wala ab conférence boo xam ni. day xam fiq xam tasawuf xamul murit xam suruutu islam yëpp ba noppi ndeyam ak bàyyi mu juddoo ci yoon bi boo defee message yi ñuy jàll dem bu ñu ko jàll dem xaj na lañ bëgg daañu ko mën a ba mooy borom mbooloo ñett yooyu daal la ñuy wax bu ñu ko xamee ndax xam nañu murit moom euh, jàpp nañ ni boo ñëwee raam su rek ñu boole seen biir te ñoom neen mën nañoo raame Ndakaar ba Tuuba nañ bo len jox xaysam li nga bëgg dank mom moom te ñom ñaan ak duñ ay milliards lañu joxe joxuñ ay milliards ay milliards lañuy joxe comme loolu am nak ñun ñi sëñ bi yitteel war nañu xam ni jóg ngir break loolu loolu nak ton xulo doon xex xamna bil hikma lay doon wal mawhis al azama tay mo di jafe nag ndax ku nitee moo ko man ku am xam-xam moo ko man ku am positif moo ko man ndax doo tàyyi mukk ndax looy dox te jiitluwoo ci positif bu bu yàggee da ngay sonn da ngay daj te borom positif moom du tàyyi mukk la seet ko ci mag ñi àndoon ak sëñ bi ak ñi sëñ bi defar rek loolu day daal di daal sa kanam Seydina Omar ku ne xam na ku dëgër la gëmoon sallallahu alayhi wa sallam ku doon jaar ci yoon ku bañoon laboon la tamit waaye jamonoy xilaafaam moom daana tëdd sax bu guddee muy wër dëkk yi di xool lu xew dëkk bi su fi xew ñu nekk fi jubal yeeg way def sa naka sul noonu yi ba am benn bis mu romb génn kër ay kàccoor ne ca benn ñu ngay kaf ñu ngay naan sàngal ñu ngay def leen mu ñëw ak meram ak bëggam lu baax ak bañ lu bon tax mu ñëw rek yëg cëpp li fekk leen ci kër gi dal ci seen kaw ñu ne ko ah suñ mooy suñ borom benn yoon yow mooy nga ko ñett yoon te muy dëggit ndax suñ borom dafa wax ni laa tadduxloo bu yatan xayri bu yatukum xataa tastaqsi yow da ngaa dugg ci di suñ borom dafa wax ne booy dugg ci kër da nga fëgg te jaar ci bunt bi wax na itam wa atul bu yata min abwaabiha yow fëggoo waxoo salaamaaleykum dugg nga ci biir bi وخني تم ولا تجي صوت لا نيو يدو انكو بولي نكو يتم لقد بعث الله من هو خير منك الا من هو صبر مني وامره بالرفق يالا يوني نك لا گن فوف تي كونو گنا بون دوكو واخ ما ديف دان موسى يننت لا هارون مبوكم يننت لا kon xam na ne firaw na kàccoor la moom moo gën a kàccoor ñëpp waaye bañ ci yónnee ñoom ñaar fa xula lahu xawlan layyinan la ko lahallahu yatasakkar aw yaxsha kon yëf mi ndànk la foofu la waaye jaar ba li ñu bëgg ñu am ko sëñ bii di yaag nga bokkal sëñ bi ñëpp ak bokki taalib yëpp ñu ngi leen di fàttali ak di leen soññ lu mel nii ñu koy bari fa ñuy wootee caaxaan day fees dell boo demoon ci stade ba football neex day day fees dell bu dee bëri ba day fees dell ñooñu nag mooy mooy mooy mooy ñi nga xam ne nag soxora jot ba mu xaw na ñooñu ñooy wujj foofu waaye ñiñ settee itam ilal la si na amal ji mooy ñi ñëw ñu wujj fii te ñooñu la suñu borom soxla te ñoo fi daje te lu bon la señ sëñ Saaliu daan wax rek nee na dëkk yi yenn yi dëkk yi lu mel ni soow nee na lu bon lu bon dafee bare bare bare bare mel ni dafa dagan lu baax néew fa néew a néew ba mel ni dafa aram te fekk lu bon du yàgg yàgg yàgg lu mu bari bari ak li ci ñëpp jëm du tax mu dagan mukk lu baax itam lu ko nit ñi gën a mooy gën a gën a woon gannaaw lu tax mu aram ba mukk kon lii ngay def nii te defi ko defal sëñ Tuubaa di ko defal sa maam kon na ci sax ci tewe ci te xam ne aw yoon nga yoon bi da nga koy jaar nag boo ko wàccul da nga tase ak sa maam sëñ Abdoulaye da nga tase ak sa maam sëñ Tuubaa ak gaa yu baax yëpp te dëkk ba nga jëm da nga caag ak ko ànd ak yow ngir bañ guddal rek ndax coono bi ak war a dellu léegi ngi sant ñi fi teew ñëpp. di leen gërëm di leen ñaan noonu nag xeex bii ñuy wax ñu ngi ci bu baax a baax ndax waxtaan naa waxtaan naa jëkk alxalifatul am Seex Sidil Moxtaar muy mbooloo moo xam dañuy jóg kennal sëñ bi ci wax ak ci jëf ak lëggeel ko ndax ku ne xam na ni nit ñaa ngi wax loo xam ne xamuñ dara ci sëñ bi dafa am benn waay bu ma sa ñëw ci sëñ Abdou Lahad fekk tubaab bi dal mooy jamono yi ba mos xam daan am bëgg ko def film ànd tubaab bi mu waxee ba noppi sëñ bi ne ko ah. loolu man ànduma ci ndax xamoo ci sëñ bi dara moo tudd ak kilifa ne ko ah, boobu day nu ko xamal bu daan waxtaan moo tudd turam li ñu xam lépp mën na ko wax ndax ah, sëñ bi kooku daa xam sëñ fekkiwu ko fa te fi nekkoon duñu moroom sax waaye waxuma duñu moroom yi bàyyi waxuma ak moroom boo koy xamal ci sëñ bi ni ko sëñ ko xam a ñëw fii di mooy tubaab ak sàmpalawbe ak murid bi nekk ci biir bàmmeel daal ni tubaab bi moom bu ko waxee lim xam sëñ Tuubaa bu ko waxee benn moroom tubaab du ko naw lu ba koy feeweel sàmbaloo bi dem xam ne sëñ bu baax a baax dañuy tubaab yi xam ne sëñ Tuubaa wér wér waaye duñ ko wax mukk ndax kon seeni moroom duñ leen naw la ba leen dafay weer daane sàmbala bi tam xam ne ko waaye faatu na mën mën faatu na mënta dellusi di ko waxat murid bi ñëw ci kaw suuf xamu ko waaye bu duggee ci biir bàmmeel a ko waxat ku mel noonu nag nga am ko mu féetale fépp di sa lépp hmm? te nekk serofot dañ koy gàkkal gis nga fóotub gàkk moo gën a yomb fóot mu ni mbubb mu ni rëpp tëri lu sa mbubb boo taqee la da dem fóoti waaye soo bàyyee bam lépp ko lim da nga perte de sang da nga jëndi saabu jëndi tax sax mu set kon loolu wax ak sëñ bi noo ko war wet ndax suñ bàyyee ba mu sax ci xol yi ñi ko xamul dañuy jàpp ne dëgg la daal joon dëgg hmm? na ay way yoo xam ne dañ ko moomale sëñ bi te defu ko madame Ponti xaw man am naa kii di mais dama ko mokkalul voilà voilà mu am naa am na am na am na waaw mu bokk yooyu yëpp ay borom xam-xam a ko def te xeex sëñ bi ñi xeex sëñ bi nag su fekkoon dañoo néew doole kon waaye bu fekkoon koo làmb daj ko mën koo xool gis ko hmm? ñu fi bàyyi tam mu xaj na. sago adduna bi comme nag yàlla dugal na ba du ñuy ay néew doole ñuy jërëm loolu tax xeex bi gën a métti waaye nag comme sëñ bi jox na ko te duñ sonn bu ñu loolu yitteel dama la wax dañu war a yitteel mooy jëmmi sëñ bi rek waaye alal ji moom ku dund am ko bu mu la yitteel na sëñ Saliou waxoon ñaari biir yee fi nekk rek te defal sa këru àdduna ni sëñ Moussa daan waxe defal sa këru àdduna ba mu tës sawara bàyyi saw yaram mën naa ñàkk te nee na nit ñi léegi noonu la ñuy def seen kër yi àdduna yi dañ a defar defar fet du lakk fen bàyyi saw yaram te yaram moo war a gën a foor nag kon sëñ bi daal ci gàttal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp tawféex ak ngërëmu sëñ Tuubaa ak mucc ak mucc le wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf بالفيد قرآنا له ختاب يا يوم سبت في وتاني وبان لي أمسي ما أبصار برآنا نبهتني أمسي سيد